je pense que au début histoire bi c'était histoire de merci la woon bon histoire est privée entre député Ousmane Sonko ak euh, le député ak euh, Adji Sarr mais dem nañ ba ci biir ñu gis ne le député Ousmane Sonko def na li muy def ba pare bugg a jël affaire bi def ko affaire de politique léegi nag ñun en tant que jeunesse républicain waa COJER ko waa maire ñu jóg ne loolu du fi amee parce que dëkk bi ñu ñëpp ko bokk Sénégal duñ nangu kenn ku koy taal. yow def nga li ngay def ba pare demal avec la justice que tu règles son problème ñun looloo ñu animé moo tax ñu jóg ne loolu du fi am tey du fi am suba suñ dëkk bi ñoo ko moom Sénégal duñ nangu kenn ku ko taal comme ni ko coordonnateur waxee rek discours ça sera maintenant œil pour œil dent pour dent ni ko français di wax. waaw boo déggee ñu ne œil pour œil dent pour dent ça ne veut pas dire que ñun dañuy utiliser violence mais ñun cadre bu ñu doxee mooy typiquement est privé pas une histoire boo xam ne c'est dans le cadre politique wala leneen wala leneen ñun méthode bu ñuy jël c'est dans la non violence parce que APR suñu parti ku ko xam-xam ne c'est un parti non violent parce que depuis 2008 ba 2020 kenn xamewuñu violence kenn xamewuñu dara ñun daal lépp lu ñuy def daal mooy leeral xamal askan bi ne loolu Ousmane Sonko di woote du question politique du question complot du dara mais histoire de meurtre la histoire privée la Mamadou Mourid Diouf sama gis-gis mooy gisigu le coordonnateur national bu maire ak bu ko gère œil pour œil dent pour dent ndax ay ndawi président Macky Sall lañ début combat bi dañ ne c'est privé ñu bàyyi privé bi di jàll mu attaqué suñu président ñu bàyyi mu jaal mais gis nañ ne affaire dafa gën a yokk chaque jour mu ngi génn di wax chaque jour ay nit mi ngi génn di wax looloo tax na ñun nday président Macky Sall ñu bëgg koo wan ne ko bu dee réew mi président mooy borom ndax moom lañ fal à 58 pour cent sénégalais yëpp ñoo ko ko fal moom 15 pour cent yooyu mu am waru waru la dominer ñun suñuy cinquante pour cent taxaw naan derrière suñu coordinateur les deux muy maire ak COJER unis pour ja euh, jàkkaarloog waa Pastef yi wan leen ne le ñoom xamadi wuñ ñu leen gën a xamadee fi ñu leen gën a réew nga fi ñu leen dàq politique ngeen fi. Oh, wax ab wax bu bu mu sànni gàkku euh, Gakou ni euh, dafa amoon li mu bëggoon ci nguur gi amu ko maanaam bokk ci cabinet président Macky Sall. amu ko rek mu fippu daal di daw <laughs> ci ginnaaw Sonko yow tey loo ci mën a wax ah juste pour gën a dëggal li nga xam ne coordinateur COJER ak coordonnateur maire national muy Moussa Sow ak Ablaye Diagne waxtaan wax nañ ko tey parce que je pense que ne euh, bëgg Sénégal weesuwul nekkee ci Sénégal li nga xam ne président Macky Sall nekk na ko fi les gens yi nga xam ne nag danoo nekk nekk des gens tapis dans l'ombre nekk di def loo xam ne seen intérêt crypto personnel moo leen tax a jóg juste pour déstabiliser le pays li coordonnateur bi wax lañ leen bëgg a dëggal ne leen ko mayati parce que bu dee ci terrain politique lan ñu woo ñun dinañ leen wuy ba mu saf sàpp ci terrain politique comme ni ko coordonnateur Moussa Sow waxee œil pour œil dent pour dent mais suñ président de la république muy nga xam ne mooy son excellence Macky Sall amul jotu ñoom parce que jotu sénégalais yi la am li nga xam ne sénégalais yi dañ ko ko dénk yaakaar gi nga xam ne sénégalais yi am nañ ko ci moom ba falaat ko ko fal boo xam ne falu historique la muy en deux mille dix neuf moom ci loolu la nekk suba ngoon gudd ak bëccëg mais ñun ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ànd ak moom nag. di ko défendre gëm vision gëm gis-gisam pour un Sénégal émergent lépp loo xam ne dina ko jéem a gàllankoor ñun dina nekk ay rempart ci kanamam pour protéger ko parce que comme ni ñu amee habitude di ko wax ñun waa maire national ñoo ko fal te ñoo koy aar muy son excellence le président Macky Sall. ça fait de cela donc euh, l' médiatique au Sénégal ñëpp xam nañ ko donc euh, dafa nekk mbir boo xamante ne ça met aux prises deux citoyens sénégalais muy une son nom Adji Sarr ak l'honorable député muy Ousmane Sonko mais aussi vu le caractère privé de la situation et de la chose moo waral moo waral tekk tekkaaral gi toog di seetaan tant plus que noonu la war a mën a demee si état de droit noonu la war a mën a demee si dëkk boo xamante ne aussi charte réew mi moo ko lal donc ñaar nit bu ñu jotee dañuy toog seetaan bay justice def liggéeyam pour que après ñu mën a xam dëgg bi fa la féetee donc ma jàpp ne aussi en tant que jeune politique parce que ñun on a deux casquettes nous sommes des citoyens sénégalais mais aussi nous sommes des jeunes politiques appartenant à un parti politique avec un président de parti qui s'appelle son excellence le président Macky donc bu amee benn parti si accusé bu boo xamante ne jàpp na ne dañ ko complété si affaire boo xamante ne moo demal boppam foofu kenn fekkeewu ko kenn gungeewu ko addu da kenn dañu jàppee ne ñun aussi ça va de notre responsabilité taxaw artu ne nag te nañu bàyyi justice def liggéeyam parce que lii le président de la république ak keneen ak keneen kenn takku si kenn lalu si du yëfu kenn lu dul ñaari nit ñaari nit ñoo xam ne ñoo joxe looloo tax tey ñu war a looloo war a tey ñu def tey conférence de presse pour ne na ñit ñi arrêté na ñit ñi génnee turu président suñu leader si yëf yi yooyu tant plus que Macky Sall ñëpp xam nañ ne depuis avant depuis les années 80 il fait la politique te kenn mës tëkk cité si yëfu bases donc du tey jii bu muy nekk président la république bas mi taxaw mu war a liggéey ak le gouvernement ak résultat escompté yi ci jot am muy liggante wala di nekk si yeneen yoo xamante ne en tout cas soxalul sénégalais ñun tey lu ñu soxal mooy ñëpp gis nañ ko à travers le leadership de la géopolitique du président de la république am na ñaari vaccin dem ba mu si jàppale la Guinée-Bissau et la Gambie kon tey li ñuy def mooy ànd dem si sénégalais yi wax ak ñoom en tout cas def une campagne de vaccination boo xam ne une campagne qui